kon mbokk yi ñëw nañ taxawu ki nga xam ne mooy seen mbokk muy Amath Tidiane wan waaye yemul ci mbokk yi boo ko seetee ñi bokkaloon liggéey ci gouvernement ñëpp teew nañu fi boo ko seetee ñi nga xam ne daf leen yar ndax yar ni weesuwul nga am doom muy jàng ay xaritam ay nawleem ay am di jàmmam di ñëw sa wet li ngay digal sa doom nga koy digal doomu jàmbur yooyu ñooñu ay doomu Amadu Tijaan woon la ñu woon yemuñ ci loolu dafa nekkoon nitu jamonoom mais nekkaloon nit ku duggante woon ak jamonoom li tax ma wax ko mooy Sénégal dañuy yomb wax waxu nasaxan waxu nafiq Amadu Tijaan woon yàlla bindewoon na ko mu nekk nit ku dëggu nit ku am fit nit ku am honnêteté intellectuelle am courage de ses idées muy ko am rigueur ci liggéey xaalis poste ak pouvoir jaralu ko mu perte dignité am ay seede yu bari boo demee ci livre bi mu bind jamono bu metti Jean Collin nu mu meloon ci réew mi Amath Tidiane Wane ku ko lire rek da nga xam kan mooy Amath Tidiane wan li ma fi indi ñaar la benn bi wëllëre ndax xam naa ay doomam xam naa ay cousin am moom ci boppam ma xam ko xamel bi ñu xamante mu ngi mel ni nijaay ak doom dafa ma jàppe woon jarbaat ba jamono bu nekk ëpp na vingt ans du toog semaine te jàmbatuma pour ma ñëw seet si ko pour mu digal ma li mu war a digal wala waxtaan ak man li mu yaakaar ne mën naa ci soppe xalaat ak moom ku mel noonu bu fi jógee addina bi yëpp ñoo ko mën a jooy moo tax tey fii kenn xaju fi te wóor na ma ne fa mu dëkk def na fa lu baax ndax ku nekk maire ci dëkk say maam yor réew ma nga dem ba man dellu sa dëkk yor leen defar dëkk ba waa Kanel ak ay mbokkam yi nekk laaw boo fa demee bu ëllëgee da ngeen xam ne kan mooy Ameth Tidiane Wane